salaamaaleykum mbokki Sénégal ni ngeen ko xàmmee ci bopp réew mi jubbanti lañ fi woote jubbanti ci jikko yi jubbanti ci yorin wi waaye jubbanti tamit ci dëkkuwaay gi ñu fas yéene ci ànd ak sénégalais yi te gëm ne lu ñuy def ñoom lañ koy bokk defandoo ko ndax kenn rek doyul pour soppi lu fi nekk benn bés ci weeru juin fas yéene nañoo am ci biir Sénégal set setal bu mag a mag mag liñ ciy waajal mooy taw yii di ñëw te gi ñu xaar ay taw yu bare bare bare ñu xalaat inondation yoo xam ne xëy na jotaguñ fi def liggéey gu tax ñu mën ko fànq ñu bëgg a def liggéey boobu ànd ci ak yéen man mii dinaa ci génn keneen dina ci génn ak gouvernement bi yépp ñu jël suñu peel jël suñuy bale jël suñuy rato dem def lu ñuy wax curage yu canaux yi caniveau yi maanaam fi nga xamante ne foofu la ndox mi di jaar ñu defar ko ba bu du fat bu ndox mi bu ñëwee dina mën a jaar dem yoonam waaye ci bés buñ ko nar a def tamit bu ngeen seetloo dañ koy def ba pare ki ñëw nañu xalaat ne saa yu ñu tilimalee ci lu mënta ñàkk ñu setalaat ko lii nag ñu ngi leen ciy woo yéen ñëpp sénégalais bu mu mën di nekk ak fu mu mën di nekk samedi premier juin na nga ñëw ñu fekkante ci terrain bi te bu kenn xeeb boppam ci matériel bu muy yore pour setal koñam waaye di ngeen ñu gis sur le ñu nekk seen wét ba xool ñun ak yéen kan moo ëpp njàmbaarteef ci li nga xamante ni woo nañu leen ci asalaamaaleykum wa rahmatullah